Les spectateurs téléspectateurs Dakaractu ñu ngi leen di nuyu euh, di leen jaajëfal yéen ñëpp tey jii nag dañ ñëw dalal ben artiste musicien rappeur boo xamante ne ni kenn dootu ko présenté ti muy euh, Stéphane Kabou Stéphane nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax Ndeye Fatou di nuyu téléspectateurs Dakaractu yëpp di nuyu ñëpp internautes yi ñuy sur à travers internet voilà et Stéphane nous euh, bàyyi un peu de revenir à euh, sa carrière et aussi kan moy Stéphane pour nous nga ne alors pour résumer rek bon résumer résumé simple quoi sénégalais c'est le sénégalais Stéphane Kabou Judo Grand Yoff Magé Kaulak après cas de Dakar donc voilà nous avons un résumé résumer artiste euh, rappeur donc j'ai un peu grandi avec le hip hop avec le hip hop avec l'influence de de PBS d'Araji, Black Bolo, comme nous le koy à chaque fois et ces personnes là c'est les incontournables quoi ne ñoo pas que andi donc loolu la ñu quoi et au début dañ leen Topando, toppandoo et etc. après c'est un bonheur métier actuellement une passion un métier gis nañ ni 2007 euh, 2005 autant pour moi j'adore. en euh, en 2007 nga def euh, solo est-ce que vous nga fait si un peu de temps? 2005 en fait bi may commencé carrément 2005 j'étais dans un groupe on s'est installé dans un lycée dans un woon groupe Starak man ak sama gars yi et tout Talisman, Legalize et cetera. et di leen big up au passage donc après ça bon ku nekk dafa jël yoonam ñi dem nekk ay professeurs ñi dem nekk ay enseignants et tout et après ma suis solo quoi carrière solo et euh, en 2007 là, commencé vraiment def carrière solo quoi mais réellement réellement la carrière a vraiment débuté en 2012 me génne mon premier album J'ai mon mon premier album tout ko Amnésique et après n'ai pas vraiment eu le temps de faire la promo de communiquer là-dessus après tu l'as voyagé Demnek, nekk à l'extérieur installé au Fof non mais en gros je nañ euh, démarré à partir de 2012 c'est mon premier album donc voilà 2012 2019 voilà. exactement gis nañ ni aussi tamit euh, am euh, album qui a ni César. Mhm. que est le meilleur trophée vidéo si je ne me trompe pas. voilà c'était un single la bu album bi en fait César j'avais fait la vidéo et dañ nominé euh, l'année dernière en 2018 ci Raya Music Award donc nominé pour catégorie meilleur clip mu meilleur clip effectivement voilà tay ñu ñëwaat dellusiwaat un peu ci ces vidéo mm. gis nañ ni ce vidéo yi bon nu mako ko <laughs> expliquer. a expliquer dafay des fois day melni lo xamanteni xamante ni dafa xaw ragal lu un peu nu démé demee waaw fa scénario yi la rek hein. scénario yi la man je suis je suis quelqu'un je suis très passionné par le cinéma et euh, daf may inspiré en fait loolu yëpp daf may ça m'inspire en fait le le fait may seetaan yenn film yi le fait que may bëgg def lo xamanteni c'est au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir comme lu may wax chaque fois du le gars est def baaxul et tout mais chaque fois damay bëgg andi ben touche bu bees et man comme je suis très très attiré par le cinéma damay andi touche cinématographique bobu et bëgguma def clip sans pour autant mu am scénario faut que un scénario melni le film et je je pense que les gens ils aiment bien voilà danañ ko capter bu baax bëgg nañ ko quoi. voilà am nga carrière bo xamante ni bien vrai certes yagul parce que diggante 2012 2019 yagul mais carrière bo xamante dafa riche mm. euh, léegi euh, au-delà si album yi nga génneeg yooyu nonou est-ce que mën nga ñu wax ñaata album nga génnee ñaata single et tout pour que ñu mëna xam. alors 2012 euh, la génne premier album bi comme lu may wax amu woon temps pour def euh, promo bi album bobu ben son bu tuddoon Higher mom la defone clip en 2012 mu génn xam nga gay cho nañ ko et tout ça ils avaient beaucoup aimé mais comme amul woon trop de communication donc euh, accessible lu woon torop c'était que sur YouTube et cetera après ça en 2013 ci la génnee sama premier single officiel mu nek tolluwaay ma def clip bi aussi et depuis 2013 chaque année ma génnee ben single 2013 tolluwaay 2014 ma génnee Souf, 2015 ma génnee euh naa God donc 2016 entre 2016 ak 2017 génneewu ma dara parce que dama defoon ben genre repli dama defoon ben genre repli pour gëna a pour gëna pour régler affaire yu bëri yo xamante du lepp moo amone sax rapport ak musique bi quoi pour me retrouver avec moi-même pour voilà xolat lu bëri et 2018 bi ci la César César bi jël meilleur meilleure vidéo et 2019 j'ai gagné aussi un clip Il y' a quelques jours que que j'ai sorti 2020 ma na a album quoi donc chaque année ma une benn vidéo. voilà tay ji Stéphane mon ban euh, style lay faral di utiliser. rap hein, rap à la base rappeur je suis rappeur je je fais que du rap je fais que du rap après musique bi monde, na différent la musique peut être différente euh, selon mon euh, composition selon selon sampling selon ni koy composé ni ñu koy liggéeyee ak bu featuring par exemple euh, dans l'album j'ai fait une chanson avec Les Diwanji. et da nga gis ni de dafa ñëw woyee neneen c'est vraiment une symbiose Ben affaire boo xam dañ ko ku dafa andi lu mu am ñu a pas vraiment un style particulier un style boo xamante ni foofu la kal affaire bi on est ouvert moi je suis très très ouvert donc Jess moo def instrumental bi et instrumental dans da ngay Amna, ni Amna, ay sabar amna ay ay ndënd ay tama genre non noonu quoi donc rappeur la à la base donc on a rap différents différents styles de musique quoi. Hmm. voilà dañ gis ni yow ak Dip Doundou Guiss da ngeen ay scénario Nous fa demee non <laughs> Dip wa am na am na am ñoo xam ne dañ koy wax que duroon nañ un peu lecture ci bu ñu xoolee lecture vidéo yi et tout ça ça ça ne peut que faire plaisir en fait tey parce que tey mënoo wax hip hop Galsen te waxoo Dip xam nga et puis xam naa ko quoi on se on se on se connaît bu baax même bu nekkee man maa ko si jiitu aujourd'hui il reste le le rappeur le plus populaire le rappeur le il est incontournable si rap Galsen bi donc ça fait plaisir que aujourd'hui euh, man ma def benn œuvre nous comparer ko wala à côté de œuvre c'est nickel aussi c'est un travail très très bien fait je sais que nous avons fait plaisir nous aussi la koy fait plaisir qu'on lui dise peut-être que Stéphane saint clip yi quoi et tout ça donc euh, ça ça fait plaisir en fait ça fait vraiment plaisir voilà nous avons euh, yaa ngi euh, album. en janvier. muy Shift. Shift pourquoi Shift ak album bi voilà Shift. Shift, c'est comme bonnet que ça touche ordinateur. Tu vois Shift, tu vois, il y a le bouton Shift. C'est une flèche, une flèche ascendante, donc qui va vers l'élévation, qui va vers le haut. Je signification Et dans tu saisis saisir ce, clavier. Tout Shift, donc, est utilisé pour, pour accéder à d'autres fonctionnalités. Donc, ça veut dire que Shift, de forme importance. Donc, utiliser chaque fois, mais d'un pour, euh, pour accéder à une touche, pour accéder un degré sinon il y a am amul benen raccourci bu remplacer en fait ou c'est très très difficile donc l'album est donc album un album qui va qui va qui va servir de pont entre ce qui se fait en ce moment et ce que moi je vais faire quand je vais sortir l'album donc ben pont pour les gens qui suivent pour les fans pour tout le monde ben pont là en fait les gars point A et point B et point boobu noonu moi, c'est mon album moi la la chose nouvelle que je compte amener euh, côté vidéo côté chanson côté image et la manière même de s'exprimer de en fait c'est un peu tout c'est un package en fait Mon tard donc Shift ça ça va être un nouvel album pour maintenir Le best lay nekk si euh, paysage ou musique sénégalaise Sénégal. exactement le best lay donne mais album bi ñata morceau là. album bi c'est 11 titres 11 titres là et il euh, y a des featuring aussi Des finales chanson comme je l'ai dit tantôt avec. Les Diwanji, euh, une chanson qui parle de l'enfance. Le titre, c'est Hop. Elle a fait une chanson avec Edmo Flow, je pense que tu connais. Elle a fait une chanson avec euh, Deep Dose, c'est des rappeurs, c'est vraiment de, très très bons rappeurs. Et Deep Dose, Flexo Dables, Yabijap, aussi euh, Farmara, des gars qui sont à Ziguinchor. Donc c'est un truc vraiment très très ouvert quoi. et les, rappeurs sénégalais, Dinen Tchigui Senbop, Inch'Allah aussi, parce que c'est important en fait, parce qu'on partage le même micro voilà. promotion album Bobo Nono, naka alors le 15 bon actuellement on est en phase promo hein. euh, tout le mois de décembre on va faire la promo dem ci média yi wax ak ñom préparer et tout parce qu'on fait pas que ça on fait j'essaie aussi de faire dans le social donc loolu ça va de pair avec moi ce que je compte faire de ma carrière euh, le jour de la sortie 15 euh, janvier 2020 on va faire une conférence de presse d'ailleurs nous leen invité ngeen couvrir donc une conférence de presse où on va vraiment présenter l'album faire ben listening gars aperçu de ce qu'on a ce qu'on a eu à, faire euh, donc conférence de presse après on va laisser les journalistes relayer l'information continuer après ça on compte faire un concert au mois de février donc date en fait une ce c'est pas encore calé pour le moment donc on attend juste d'avoir des des choses pour nous commencer à voir et tout ça on compte faire deux deux deux grandes dates en fait pour le mois de février soit nous def février une date en février et mars, ou bien les deux en février. On est en train de voir. Mais il y aura des, séries, de concerts, et il y aura aussi des rencontres avec les fans. Parce qu'on est, euh, je suis suivi sur la toile, mais euh, il faudrait quelque chose qui puisse euh, rassembler les fans en fait quelque part. Donc, à savoir les concerts, les rencontres, les débats et tout, on compte faire tout ça pour vraiment faire de sorte que nous connaissons cet artiste et que l'album est accessible d'un fait pour en fait. Mm-hmm album bi def nga ci ay featuring avec euh, des rappeurs ni sénégalais lañu. Mm. ku ci mel comme ni ko ay et tout. Mm. vu que ni yow nous, à l'extérieur est-ce que mm. prévoir nga fofu def ay euh, featuring comme du genre avec euh, La fume Booba etc.? cetera. why not why not xam nga dafa am muy dañuy xam sax dañuy xam lu xew dañuy xam sénégalais nous, rappeurs yu xam nañ à peu près quels sont ce qui, les, les, bons rapports, ni cartonnés, etc. Mais featuring en général, nous avons fait au Sénégal, nous avons senti ben gain walk allo boy bëgg nañu def ben son ngeen dem studio et tout en général nous non lay démé à l'extérieur nous non lay démé parce que ñom avons signé ci ay label la plupart de ces artistes dañu am label donc nous ñëw rek euh, dem woy ak ben artiste bu leen neex dañuy xool fu seen intérêt nekk dañuy xool woy boobu fa la leen di porter la andil en général c'est très rare mu nous euh, dañuy def featuring rek juste par simple plaisir bien pour dénoncer une cause noble etc. en général day nekk loo xam ne intérêt ces et tout et donc du coup c'est pas très très évident c'est fort possible mais euh, du nekk nekkul loo xam c'est objectif derrière ça bu tant mieux bu tant mieux enfin je continue ma carrière et j'avance mais je pense que ça c'est faisable c'est possible. Ces hmm. projet. lan là, si musique bi. alors euh, déjà je compte mettre en place mon label mon propre label au Sénégal ici. Euh, pour entrer vraiment dans la production. Euh, parce que ça me domaine-là, je suis, je suis monteur et tout ça, je travaille ici dans une chaîne de la place, dans une chaîne télé de la place. Et donc, du coup, ça me domaine-là, mon ex, c'est mon projet. Après ça, je, pense que l'eau, ça va de pair avec la musique. Euh, après ça, franchement, c'est des concerts, des tournées, essayer de faire de sorte que Guy gens musique musique musique. On va faire plein de clips. album L'album, clip et clipper xam nga lépp laa bëgg a clipper pour def ko benn film benn long métrage et ci projet boobu noonu laa nekk et tout ça je suis en train de bosser dessus pour après mu nekk musique et cinéma en fait parce que man du musique bi rek laa bëgg di def musique et cinéma donc voilà. donc tey su ma la déggee nii cela veut dire que ni tu comptes faire euh, du cinéma. bien sûr bien sûr parce que sama clip yi boo ko année sax da nga gis ni damay acting bi man maa koy def du ma jox keneen pour mu def ko parce que je sais que mun naa def parce que jàng naa aussi j'ai appris ça ligué na ci ben club de cinéma même fii ici à ici à Dakar et euh, c'est c'est vraiment mon domaine et je compte pas je compte pas lâcher dama koy continuer bu baax a baax. ñu bàyyi la nga may ñu il y a une chanson bu sa bu tudd ADN qui s'appelle ADN en fait dans le dans le projet euh, texte boobu lay mayé maa ngi wax musuma xam bisu gaane si waaye xam naa bis biñ ne ma dellu si bis bu rëy bi jooyloo say ennemis sax ndax yaakaaruñu woon dina demee ni sax gëmuñ woon ni dinaa sax ci xolou nit ci bo nopi dëkkee fi ma dëkkee ni sax yagi fi lol té wér garab bu la sa tuddu la may ben xewal Saint Esprit ken kenn keuf fi ma bokk dafa yéeme waaye bëgguma first tës wàññi ma wàññi ma wàññi xaru got nga wàññi ndax bis ba amul si sak bi bisa ngi si bisi ma gis ki ma sak mu doon mbégte si man mu doon sama bàkk tak tak musal ma si kuma ma donc c'est c'est c'est un texte bo xamné ça me ça me ça me touche beaucoup et ADN le tout de la chanson là après je vais je vais te le faire écouter exactement ah. léegi nous revenir un peu si monde hip hop gis nañ ni dafa nekk euh, milieu boo xamante ni. Hmm. ça tend à disparaître mais aussi faire des bousculade. le milieu hip hop voilà. Euh, disparaître comment ça se. Euh, comme euh, avant les gens qui doon hip hop les le plus souvent mm. dañ a rappeurs xam mm. des dem euh, des di lal style musical <laughs> non pas comme pas pour les citer di lal yeneen style euh, musical ñu bëggon xam yow milieu bi ni ni ni changé mm. ban jangat nga pour moi eh, c'est un milieu la musique elle grandit pour moi elle grandit parce que au contraire avant à mon engouement certes concert yangi ngi doon gën que maintenant ça mais euh, dafa gënoon tëju sax que maintenant maintenant la gën ouvert da ngay gis gars yi léegi dañuy def ay vidéo yo xamné ñu ngi nangu léegi di jël musique bi di ngi jang di jël tamay ñu am euh, djembe yi kora affaire non noonu di ko gën a ci musique bi et ça c'est bien ça vend la musique avant ça nga dem jaay extérieur da nga koy jaay fi et donc du coup c'est très très bien la preuve bo xoolee euh, lu mu yu mujjee génn en fait gars yi dañ ko bëgg parce que ce gis rappeur bu def euh, featuring ak benn benn Malaxman xam nga bu ñëw il est libre dans son style il fait ce qu'il veut le rappeur fait aussi ce qu'il veut et c'est très très bien gars yi ko ça fait des millions de vues ça fait des millions de vues les streaming explose xam nga su gars yi wootee loolu la am quoi en fait loolu gisuma man artiste pour man waroo tëj sa bopp rappeur nga d'accord mais yow reste mën nga toog ci sa authenticité rap et tout mais tu as son avec Ben Youssou Ndour, tu vas pas dire à Youssou non, toi je t'impose de rapper. Tu peux pas le faire. Lui, il vient avec son style, il vient way, etc. Et on gagne au rap. Après, musique bi ngeen boole ko jaxase ko pour c'est très très bien c'est une bonne chose euh, gisuma ni loolu lu delloo musique ginnaaw au contraire day day day force musique bi après lu tax ba bëriwutul engouement c'est-à-dire concert pour nous faire c'est tout un tas de problèmes c'est-à-dire da ngay def un lobbying bu métti yaag sa gars yi kii wala fans yi dina ñëw bu neexee dañuy ñëw am loolu amul problème mais c'est que musique bi dafa accessible légui ku nekk yaa ngi sa téléphone yaa ngi 10 heures tu veux écouter Stéphane Kabou da ngay tapé Stéphane Kabou ya di nga ko gis 10 heures di nga toog déglu parfois di nga am loo bëgg en fait certes du bokk ak concert mais parfois parfois tu dis que bon y a pas de souci voilà am naa lu ma bëgg et cetera et gars ils ont de plus en plus du mal à aller dans les concerts après benen aspect bi moom mooy côté social dëkk bi dafay gën di métti nous avons des choses qui nous ont été faites. C'est ça, nous avons des choses qui nous ont été faites. Avant, la euh, vie était moins chère. Les gens ont des concerts, les gens ont des métiers, ils ont 10 000 ou 15 000 pour des concert, tu vas dire que tu as des choses qui nous ont été faites. C'est un peu compliqué socialement parlant. Il y a des activités musicales, même culturelles. Euh, on a du mal à, à dégager les gens en fait voilà complexité bi nga xam mom nga évoqué légui, est-ce que mhm. lolu yeen en tant que artiste dina len arranger. pas du tout même humainement parlant mhm. même humainement parlant parce que ay sénégalais lañ ci dëkk bi lañu dëkk xam nga on a des factures à gérer on a des maisons à gérer donc humainement parlant ça, ça nous ça nous arrange pas dëkk bi dafa métti euh, ñu wara liguer, je pense que war nañ liggéey def lu ñu wara def comme ça. Euh, ñun jeunesse bi aussi ñu def lu ñu war def ñu ñu mun a dem le problème c'est qu'il y a des gens de l'autre côté qui xam ne defuñu lu ñu def et du coup loolu moo nous mu métti les politiciens faale wuñu dunduñu ñu nous, la neex la def c'est c'est c'est bien dommage mais askan baa souffrir askan baa sans nous, euh, dëkk bi dafa gën c'est très très dur et donc, xam sax nu ñuy def pour mon fa dem révolution kañ lay am il faut qu'il y ait une vraie révolution j'appelle pas à la casse à quoi que ce soit mais il faut qu'il y ait une vraie vraie révolution xam nga et tout

en tant qu'artiste yéen euh, bon naka ngeen di def pour que révolution bi nga xamantene mom ngay wax ni mu meuna am ci bile réew. man pour man do artiste rek gis nga euh, tay par exemple si je prends le cas de euh, Guy Marius Sagna par exemple qui croupit en prison en ce moment Mom lu mu dem diñu kassal pour ñun la mais mom japp nañ ko parce que mom mu ngi kassal ñun mais ñun defuñ dara en fait donc il faut je pense qu'il faut que ñun ñëpp ñu sonndo amna ñoo xam ne sonnaguñu je pense que dëkk yu na certes mais je pense qu'il faut ñëpp ñu jogondo mu am ral bol ñëpp ñu wacc ci tali bi amul ben dëkk bo xam ne nañ ko té amul révolution mënul nek, amul il faut qu'on se révolte xam nga nit mun na marche té du toj té du tal té du yàq etc marche révolution mun marche def une une grande marche ou bien je sais pas lan lañu mëna def en tout cas des boycotts wala whatever mais en tout cas mun nañ def lool nonu pour ñu mëna pour ñu mëna njiit yu fi nekk mën a xam ne ñii sonn nañ xam nañ ko mais mën a xam ne ñii ñu ñi nek di ñu wan seen sonn instant yi mais xam nit boko ko mën na bañ sax am doole bu muy bu mu lay dóoree wala am doole bu muy jógee wax la ni man dama xif et c'est ce qu'ils sont en train de faire dañuy assoiffé population bi sonal population bi faire de sorte que population bi day dem ba day lof nga xamanteni dañ nan ah grawul mu jigi dañuy tourner vers la spiritualité yalla bax yalla baxna na ah lu lii am na nañ ko jàppe yalla dina bax de dina bax de alors que il part de milliards il part de milliards détournés il part seen doom yi ñu ngi ñu ngi nek dans de bonnes conditions et cetera mais ñun ñu ngi nek fi ni doomu bado lay di sonn ba léegi alors que ñom yor nañ solution bi c'est ça le problème. à vous entendre parler on dirait que ni dëkk bi dafa nek en souffrance de même que le milieu musical. milieu yëpp milieu yëpp bo jëlé milieu sport bi bo jëlé milieu musical bi bo jëlé même même suñu lamb bi nga xamné sax mo ñu doon bégal les dimanches xam nga da nga leen di dégg ñuy jooy yenn saa yi naan waa bi doxatul affaire yooyu noonu et c'est c'est c'est vraiment un problème en fait secteur yëpp dañu xaw a tëju. léegi quelle solution pour mën changer lu ni mel. avant loolu secteur santé bi secteur jàng bi récemment coupé nañ ñu ndox. ñu yeew ñi di wut ay bouteilles ndox ay 1000 francs ay yooyu du ñëpp ñoo am 1000 francs bu ñuy dem di wutee ndox am na ñu ko amul ñoo xam dañuy toog duñ ko am pour man la solution c'est une vraie révolution mun n'ek nekk ñaar mën na nekk ñu ñëpp ñu déggoo fal ki nga xamante koko kooku mun nañu fu ñu bëgg a dem te comme lu ma wax sànq xam nañ la xam nga c'est personnel mais voilà xam nañ kan la quoi man personnellement jàpp naa ni nit kooku la maintenant bu fekkee loolu mënul nekk beneen révolution mooy lan wàcc si dëkk bi wàcc si dëkk bi loolu rek dëkk yëpp dëkk yëpp en France on a vu les gilets jaunes tous les samedis pendant plus d'une année comprendre nga te ñoom ñu ëpp moyen foofu te ñoom ñu ngi dund nice mais dañoo xam seen droit xam ne lii du yoon ñii waruñu ko def dañu leen fa teg pour ñoom ñu def ñun lu wax pas ñoom lu bëgg donc il faut ñaari solution yi ñoo am dem révolution ah, votées en masse pour ki nga xamante ni moom lañ jàpp ni kii mun nañoo yóbbu fu sori et encore bu ñu voté mun nañ élection yi mais en tout cas révolution la beneen bi mooy wàcc si dëkk bi dem wax ak ñooñu jàkkaarloo ak ñoom ne leen ñun sonn nañ ba pare di ko def tous les jours s'il le faut je sais pas moi. Voilà, et Stéphane, une dernière question rek, avant de clore l'émission. Moi, mm -hmm. gis nañ milieu musical légui fu way joggé fu n'importe qui est-ce que n'est pas temps ñu def un recadrement par rapport ak milieu après c'est c'est relatif xam nga yow comme nga am sa dom par exemple tay ben Stéphane xam nga di gis ay bëgg ko dem ba la musique comme pour nga problème déjà nous qui sommes dans le milieu de la musique amuñu on n'est pas structuré amul structure amul ay maison de production yo xamanteni ñoy ñooy structurer affaire yi amul yoon yoyu non yëpp donc déjà ñun on galère pour pour trouver yenn moyens yi pour def yenn affaire donc keneen bu ñëw dañ ko naan ñëwal la nga dugg ci xam nga pour ñu waree recadrer dañuy recadrer déjà pour ñun qui sont qui sommes dans le milieu tek ay maison de production tek ay ay label yo xamanteni day def de sorte que artiste bi bu bayé musique mu mën laal ay ay royalties ay droits d'auteur ba ba muy génn àdduna par exemple xam nga mais yëpp amuñu ko déjà donc ñun déjà à un autre niveau on a on a on a des soucis donc pour pour tere kenen pour mu ñew euh, c'est c'est un truc qui est ouvert en fait c'est ça le problème c'est un truc qui est ouvert. léegi ñu bëggone rek. Euh, ah. puisque ñu ngi ci fin ou émission bi. ñu bëggone nga may ñu ben avant-goût ci sa album Shift bi avant ñuy ah. tëj rek. <laughs> non bi ma sank avant-goût là ouais waaw César César César César coow li bëri na ci sama business yuuxul sama ne man nga gis ne bés ni ki tey am nga big man big gang to your all let me hit later hit make show ne ma big man ku nekk dinaan mën a mën a du ma ci lenn waaye kenn du ci dara kasara mara teg sarax li loxo defoon loxo dindi na ko kon nag dara falloo ma fal may saaraan saxal may laaf ba noppi ne ma naawal jaxaran li na ci man su dañee jant bi fay hey god dafa bind yemalewul fuck you ni nga si ah, you mais voilà quoi César le Bobnon, j'ai fait la vidéo et vidéo Bobnon, noonu meilleur meilleure vidéo 2018 euh, voilà Stéphane ñu bàyyi la nga de donc di remercier euh, internautes qui suivre Dakar Actu téléspectateurs yi remercier ñëpp ñi nga soutenir Bob ba remercier aussi l'invitation. invitation bi big up aussi Samba Ardoba et xarit di ko nuyu bu baax euh, merci pour les conseils et merci pour tout. Big up Stéphane voilà c'était Stéphane artiste musicien rappeur je suis ñu doon dalal ci Dakar Actu di leen jox dig daje ci une émission avec un artiste merci beaucoup.